port cim réew développement bi joxuñu ko kenn dénkuñu ko kenn ci constitution ku dul président de la république orientation yëpp moom moo koy tracé xaar saawa yi nii la ñuy jaar ministre des sports jaar ca gis-gis bi mu am ci sport gis ni daf ci yow dafa war a teg infrastructure joxe koppar mais également fexe ba mu law ba ci département ak 557 collectivités locales yëpp. ndaw ñi ak jigéen ñi gis ci seen bopp moo tax tey yàlla suturaal nu DG daaj ba ndam yi ñuy am ci football ñu koy am mais nag ñun lu bees li ñu bëgg indi mooy dañu jàpp ni également sport moom ki nekk mbaddaxun ak ki nekk ngaay ak ki nekk ndakaaru leen rek moo leen ci war a wutale xay na ka nekk ndakaaru day am privilège am terrain gazonné wante ni mu ko war a defee na la ko ka nekk Oréfondé war a defee ndax loolu muy seen droit c'est tous des Sénégalais non seulement nous nous voulons rétablir ces iné euh, inéquités là sur le plan sportif mais également danu bëgg a jël sport bi def ko mu nekk service su développement dëkk bi parce que jàpp nañ tamit nag sport rek dem tëddi baaxul gis nga kuréel képp ku ko yor kuréel ku ko yor boo xamante ne parce que kuréel yëpp seen soubassement c'est des associations des associations reconnues par la loi 68 du 26 euh, mars 1968 et ci ni ñu leen tëggee association dafa war a nekk au service de l'État au service de la nation parce que nag association du pour ñuy wutee bénéfice li da ngay dox rek parce que l'État mooy jël ci sañ-sañam benn parcelle jox la ngoor nga doxal. kon ñun li ñu état di jox ñu war koo doxal ci sañ-sañam war na noo fexe ba sport bi ñu indi doxalin wu bees bu nee tey dañuy am camp d'entraînement war a def ay compétition Ziguinchor Ziguinchor lay dem daje fa dëgg la mais dañu jàpp ni ci suba gi mbaa ci ngoon gi sportif yëpp war nañoo dugg ci quartier yi tey ñu sensibiliser tey nit ñi ci PEV par exemple mbaa ñu sensibiliser ci importance vote mbaa ñu sensibiliser si des activités citoyennes waxtaan ak nit ñi jugee fi nu nekk ñun gars yi war ñoo ba a gis ni ñun ñu nekk ci hôtel lan mais ñu jëm jaxasoo ak population bi saafoo ñoom fekk ñu nekk ca quartier yi gën a reculé Ziguinchor sax ñu organiser fa ay match de de football ànd koog handicapé yi ànd koog les enfants vulnérables ànd koog jigéen ñi nu beddi ànd koog góor ñi nu beddi voilà ce que nous nous apportons en termes d'innovation parce que jàpp na ne sport tey plus que jamais dafa war doon benn levier boo xamante ni stabilité pays bi cohésion sociale également paix bi jàmm ji lépp li nga xamante ne état daf ko bëgg ñun dana war a nekk ab relais pour jàllale mission yooyu parce que mooy sunu wàll et ça ça n'a absolument rien de politique c'est uniquement citoyen c'est de la citoyenneté parce que loolu loolu luy xaar. jaa 19 yi am problème yooyu ñu jàpp ne sport dafa am lu mu ci war a indi. parce que ñun ñoo nekk ci ndaw ñi ba nuy dem moom moo nu yombaloon pied yi kon nag nañ ko sant nañ ko gërëm sant également monsieur le président de la Macky Sall ndax bu neexuloon président de la République du ko def parce que ministre la. jibool discipline bu bees la bu am mais yàgg na ci Afrique fi la juddoo xëy na kay tubaab yi dañ noo ndax jël ko yóbbu ko Amérique ñu yóbbu ko Canada ñu mool ko def ci ay règles mais ñii bi nekkee xale doon nañ jël ay tanks di ko dóorante. ñii di jël ay yeneen balu kaw euh, mbuus di ko dóorante donc ci loolu la dodgeball juddoo mais dodgeball dafay dafa am ay valeur yu muy yu muy yu muy véhiculer dafa jël jigéen teg ko ca kaw ndax sport bi bu la neexee équipe bi juróom benn lay doon mu am ñetti jigéen ñetti góor mix la kon jigéen dafay wane li man xaarul ñu genre mais dafay wane tamit nga gore bu ñu jëlee bal bi dóor la arbitre a ngi terrain bi mais dañuy xaar avant que arbitre naan la génnal yow nga yëkkati sa loxo ni mankat dóor na ma bal damay génn xam nga jikko yu mel noonu bu ñu ko indiwaatee ci Sénégal xëy na sax ku ñu dékk kees di nga gore ni ba doo ko ti parce que da nga xam ñëpp ko bokk da nga war gore donc yooyu valeur la doon ci Golden bi may wax tamit ngeen ñaanal Sénégal parce que ñu ngi waaj a def confédération africaine bi euh, Sénégal euh, Afrique amagul na ñaar fukki dëkk. ak ñett yoo xamante ni bokk nañ ci Sénégal nag dafa bëgg a jiite confédération africaine bi moom moo koy xëccoo ak Côte d'Ivoire ak Cameroun également sur le plan international aussi am nañ reconnaissance ndax fan yële ci ginnaaw rek invité woon nañ nu fi Canada championnat du monde yi mais comme organiser gunu pour mën a jël loolu lépp moo tax daanaka man rek maa demoon ci samay pexey bopp man rek maa demoon pour découvrir France aussi invité nañ nu fa fekkoon ma nekk fa ma dem fa j'étais parti au salon de l'agriculture conduire benn délégué délégation de maire j'ai répondu aussi à l'invitation de la fédération euh, française de dodgeball mais également am na yeneen invitation yu ñu am nan ñaan yàlla rek comme sport bu bees la ñu am accompagnement état mais aussi ñu am seen accompagnement fu nu invité ñu mën faa dem teewal fa Sénégal répondant effectivement à l'esprit même du sport et à l'esprit du dashball, c'est-à-dire la camaraderie, la fraternité. Je répondre à l'appel d'un camarade, d'un frère que vous mais également d'un ami, euh, qui fait partie des formateurs. De façon générale, répondre à l'appel euh, de la fraternité que véhicule le sport conformément à la volonté du chef de l'État, comme il ne cesse de le décliner. Je suis très honoré d'être là parmi vous également heureux de participer à ce qui euh, à l'œuvre de pionnier vous êtes. Vous êtes les pionniers dans un domaine qui certainement euh, connaîtra très très bientôt des développements importants et fulgurants. Je vous remercie de votre esprit d'initiative, de cette volonté d'ancrer ces valeurs-là au cœur de notre, notre société. Je suis aussi surpris, vraiment surpris de constater que Euh, vous êtes assez bien représenté dans le pays. Ça dénote d'une bonne organisation, mais ça préfigure également des lendemains meilleurs, étant entendu que tout passe d'abord de l'organisation. Sans organisation, je pense qu'on ne peut espérer grand-chose. Donc que vous soyez déjà présent dans les 46 départements montre à suffisance l'intérêt l'importance que vous accordez à, à, à l'organisation, mais également la réponse effectivement que tous les acteurs concernés donnent à, à cet appel-là. Euh, le slogan « Le sport mobilise, inspire et rassure » est vraiment contextuel dans un environnement qui est marqué des crises répétitives. Nous sommes dans un pays, somme toute, stable, entouré par un cercle de feu et nous, nous devons tous, particulièrement la jeunesse, chacun de nous doit être le véhicule ou l'ambassadeur de la paix pour maintenir cette stabilité, stabilité là qui nous permet de qui de vivre et de rester tranquille. Sur ce point, je vous félicite, Monsieur le Président. Je félicite toute l'équipe qui qui vous qui euh, dans cette noble et ambitieuse euh, mission. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus que le sport pour véhiculer effectivement des des, des valeurs universalisées. Surtout que le, la discipline que vous êtes en train de promouvoir, c'est une discipline qui promeut la mixité, c'est une discipline qui promeut la citoyenneté, c'est une discipline qui promeut la, sincérité, mais également la camaraderie. Parce que c'est un sport d'équipe où chacun se bat pour celui qui est à côté de lui, pour gagner, certes, mais également pour effectivement faire triompher les valeurs autour desquelles on se réunit en équipe. Parce qu'une équipe, pour c'est un projet, c'est des valeurs qu'on partage, et c'est pour ces valeurs-là qu'on qu qu se bat pour sortir, pour sortir vainqueur. Je vous, je vous remercie. Je suis très honoré également en tant que résident soit de participer à, cet atelier. Et je suis également heureux puisque vous avez parlé de Matam, je suis de, originaire de Matam, je, pense que Matam a un représentant ici. Je pense que je vais ma carte de membre au niveau de, au Et donc je me ferai le plaisir effectivement de participer à vos, à vos activités. sur ce, euh, à mon et je, vous, je déclare ouvert l'atelier de formation des formateurs des 46 départements du pays en matière de, de